taxawako ko moom ak fii ñu du taxaw leen li ci ñepp ñun suñu baye lañ koy defal bu ñu nexé mën nañ ko bu waaye magal suñu jowa mom ku ñu jox da nga ñu ci gis ku bëgg dara tuuru na nga jéem fam magal màggalu ak buñ ci dama leen di alerte kep bo jëmee ci lamb ja kat mbër yu neew yëpp nga teg leen ci suuf mbër mu mag ma taxaw jakarlo yow nga dekk ko ha ah, ku dugg ci tanki señ tuba de biraasu man baarase gi yàlla ngay bëral de kon nak liñ doon woote ak li wut yépp fekk nañ leen ci may nañ leen ko te taxul ñu ñàkk dara waaye daal njàg daal lañ ñu fi bàyyi waaye kon seen daal ak ñaan la mën nañ ko ñaan jox nañ ko waaye nag képp kuñ jëm ci yow ba influence ba nga nar a joxe ndigalu màggalu Tuubaa de boo ko defee boobaa da xam ne murid dañ lay wet ndax ndigal Sëñ Tuubaa mag ñi fi nekkee nag ay victime lañ ci lii ndax dañ leen a wax rek. dañ leen wax ñu wóolu ko gëm ko waaye saytaane dugg ci biir tawat ju jar euh, tëj sa jumaa ji wala sa jàkk ji mu fee am bañ bañee jullu bañ bëggee xeex lislaam it sëñ Tuubaa taxawoon julli ci biiru Ndar ñu yóbbu ko ci géej gi mu julli fa ñu yóbbu ko juróom-ñaar mu dellu si kooku nag jógu fi tey jii loolu daal laa xam ne danaa ko rax ci wax ji bëgg ñu xam ne ay murit lañu te yemuñu ci murid ay saalix lañu wax sëñ Abdou Lahad def lii ñu suñuy kilifa digal de nangu nañ ko daañ ko def waaye bisi nga ñëw ci kanam de ku ci yëkkati sa kàddu yaag ña tax nga ñu yëkkati ko rek la teg ci suuf waaye kenn mun a tee murid yi ñëw tubaa ndax moom ku dee da ñëw Touba te dee benn yoon lañ koy def kon daal lu mën di xew ak luñ mën di wax ci ay kaa ci Touba ak lu ñu mën a def loo na yem ñoom xam nañ ñu tawat ji moom dugg fi nag sëñ bi aar na dëkk bu fi duggoon bis bu set junni ni tey de te Italie ak France gën a docteur fuuf te mënuñu koo faj suñu koy dee am na yeeg yu njarax ñoom ñun xam nañ ko kon nag ñu yéen itam doy na sëkk nag ngeen yem ci mbir mi doy na sëkk kët ngeen yem ci nangu nañ ko pousse ngeen ñu pousse pousse ko waaye sës nañ yéen a ngay waajal tabaski ga yéen a ngay waajal màggul Daaru Salaam daan ngeen màggul eh, sëñ sëñ Fàllu màggalu Daaru Musti ngeen teg ci suuf màggalu suñu soxee bu noonu màggalu sëñ blaat gi ñu nangu màggal gu màggal la leen di xaar bu ngeen ci yëkkati seen kàddu yéen ak waa réew mi lañu boole teg fule loolu la sëñ Tuubaa xam kon nag maa ngi sant sëñ mu del sant yéen ñu ko jël si sëñ blaat daal mënu ma cay weesu juróomi kàddu yi ma ci wax dëkk bi daal def na ci lu ñëpp gis teg seen bët njaboot bu sëñ Tuubaa gi ñëpp teg na ci